ngeen jëf mbokku internautes yi ñi ngi leen di nuyu di leen jaar yéen ñi topp xaas TV ci actualité yi nga xam ne mooy xew ci réew mi bëgg nañ bu ci dara xewee rek ñu delsi ak kilifa gi waxtaan ak moom ndax moom kàddoom réew mi dañu koy diglu nit ñi dañu koy diglu euh, rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew mi te léeg-léeg bu yëngu amee ñu am na nu def loolu moo tax tey mbokk yi ñu dellusi ak Serigne Abdoulaye Diop borom xaas ngir actualité bi nga xam ne am na ci réew mi ñun ñëpp ñoo ko yëgandoo waaye ñu nuyu ko euh, mu nuyu leen euh, ñu dugg ci waxtaan yi Mara ñi ngi lay nuyu di la jaar. Mbaye maa ngi lay fay macha allah di kontaan ci émission bi di profito di balaax réew mi comme démb la woon euh, bisu tam xarit tey mooy suñu bis bu njëkk ci at bu ñëw at bu bees bu jullit ya kon ñu ci profité di baalu àq ñëpp ci at bee ñu weesu di ñaan at mi nag yàlla def fi jàmm réew mi soxla na jàmm at mi ni mu ubbee ah ku ci tiitul nag doo nit ku ci tiitul doo nit euh, introduire nga ko ni mu ubbee gënut yeewu nan tamxarit xëy suba ñu bëggoon continuer noonu at mi jàmm waaye ngoon jot ñu ne arrêté nan ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bi nga yëgee loolu waa xam nga euh, li waa ji naan kundo bi ndey sa maam foo gis luy ñuul ku ne xam ne ni fu ñu jàppee Ousmane Sonko dëkk bi duñ nekk ci jàmm imaginer bañ ko dalee jàpp ba léegi kañ la dëkk bi nekk ci jàmm mas nga koy gis kon dafay wërndi kon dafay firndeel ni euh, réew mi soxla na jàmm te olof day wax mbay ni ku dànk korfeñ bi jëmale sa bët euh, dafa bëgg nga ki dànk jëmale sa gémmiñ daa bëgg nga ah jël fital tiimale dalaa bëgg ah kon réew mi am na leneen luñ ci baaxee luñ gën a bëgg lu dul lii te gis nga la ma waxoon waxati ko rek gis nga bala ngay xam jàmm baax nga yee fitna mm-hmm. te wallaahi mbay nit yee na fitna fa mu war a noppaloo yàlla ni ko doo noppal ngir fitna ga nga woon te boobu ay at weesu na mm-hmm. xoolal ñaata président ñoo nekkoon président tey de la république mm-hmm. tey moment bii ñu demee ba loolu kii xoolal tey fañ mujj ñaata président ana Alpha Condé président Guinée lu ne la doon def ana mu tey tey imaginel tey ñi nga xam ne ñoo jël pouvoir bi di soldaar yi xoola Burkina Faso ki jël pouvoir bi di soldaar xoola ni leen seen dëkk bëggee week leen ngir yërmande bi ñu ci gis nga ab askan boo bëggee ñu yërëm la rek yërëmal gis nga yàlla bu la dénkee nguur pour nga yërëm sab askan la njiit day yor bëti mbunaat koo xool mu suur koo xool mu suur te mu daan mu daan lu ko dàq mu ñamul jëlalu saako ceeb teg ci même bu àttanul da ngay gis muy direeku di taxaw njiit bu nekk maanaam yow mi jiitu la ñuy sànni lépp ci yow mais yaa ko àttan ndax buñ ne tey président de la république tey euh, Sénégal gi yëpp yàlla dogal na yaay seen kilifa tey kuy romb ku mu mën a doon ci kaw suuf ñu ni bàyyil président de la république yoom kon président am na leneen nag lu ko war vraiment ñu ko koy ñaan mooy réew mi nekk ci jàmm incha mooy réew mi nekk ci jàmm kon nga jàpp ne taxawaay bi nii lan la woon nan la waroon a taxawee. waa xam nga lii xamu koo fan la yëfi jëm. mais dañuy dañ may wax ni xam nga ñun rek dèjà foofu ñu fekkoon. ñu ngi yàkkamti pour génn. nan balaa dara xew. kon fitna commencé na. waa léegi nag commencé imagineel tey ñi war a xëy dem liggéey. Hmm. borom place yi war a tëj. Hmm. leneen li war a xew dara jaru ko. man toujours dama koy fàttali la mu waxoon rek am na dossier yoo xam ne maa ci teg sama njooj bi ndax su ma wóoree ni sama procureur bu ko yëkkatee dëkk bi tàkk ñu bañ ko yëkkati moo ko gën kon nag man nag dossier bu moo tax ñu koy ñaan rek lillaahi wa rasuuli moom président de la république yàlla moo ko fi teg jox ko kàttan jox ko doole mu yërëm rek mu yërëm yàlla moo ko fi teg jox ko kàttan jox ko doole waaye fi fi may ñëw mooy comme xas nañ ko téye te xamagunu lu ñuy xew te yow ndaw yi dañ lay diglu loo leen di wax waaw mooy ñu tey aussi nag xam nga àdduna eh, am na ci loo xam ni nag waaye nag dañuy wax ni eh, xam nga mbir bu amee bu tollee fii ku ci nekk ak sa yëg-yëg. ak na nga koy yëgee xam nga tey ñii ñu ngi koy yëg di jooy. ñii ñu ngi koy yëg dem di taal yi ñii ñu ngi koy yëg di def lii mais ñii taal du doo ko rafetlu xam nga lu tax mm-hmm. parce que alalu askan bi la mm-hmm. te ñaareel bi mooy président de la république dañuy dem ba ko mm-hmm. tey président Ousmane Sonko bi ñuy topp bu fi toogee li ñu yàqoon da koy def rate loolu alal lay doonaat kon am na beneen xeex bu mu dootul taal mooy carte yaa koy moom sa carte yaa ko moom gise ba yow rek yaa fay dugg xoolal ku la soob te neex la nga voteel ko waaye yàq moom bokkul ci jaamu yàlla waaye nag duglu naa Serigne si Amadou Tidiane si mu ne bu yàq jotee yàqal hmm. dégg naa Serigne si wax ko de. yàq jotee yàqal. waaye fam ko waxee nag ak fii de wuute ak contexte bi wute waaye tey imaginel boo doon dox. mu wóor la ni jaan bi màtt la la bëgg pexe boo mën a def pour rey jaan bi di ko def waaw ah, loolay problème bi aussi. Mhm. Mhm. ñu jóge woon ci contexte yu doy waar ba réew mi commencé waate stable semaine bii ñu passé gis nañ gaal yi li mu rey bërki démb gis nañ accident yi lii narati ko dooleeku réew mi ndax euh, Mara amooloo ci gis leneen lu dul yi ñu foog. wax naa ko ca début at ba. gis nga deux mille vingt trois mille vingt quatre. Mhm. jaww bi ma ñëkkee dëpp micro ci année deux mille vingt bi ci jiitu. dama ko ni nous sommes tous en danger waaw mbay li la war a jaaxal ñi daan génn chaque jour sëriñ si di wax ni lii dinañ ko xam xanaa jàpp Sonko bi yëguñu ko woon ma loolu ma jaaxal classe si jaw gi dañ daan génn lii dee ko xanaa léegi jàpp bi xanaa yëguñu ko woon kon dafay firndeel ni nañ bàyyi yàlla ak place nag nañ bàyyi yàlla ak place tey ñaan mm. te damay wax ni ku gis dee te mënoo fànk dee bañ koo nettalee ko gën te xam ne amul njëriñ lor maanaam même ka nga wax ni ko lii day xew lor nga ko te mënoo ci dara kon xam nga ni kooku rek mooy kun fa yekkun mooy sunu borom kon nañu jëraat lépp rek delloo ko te nag ma wax la it gis nga biis bu ne nga fexeel nit yàlla ni déet wallahi jamal ci déetu yàlla te xam ni mooy wéy loolu moo am solo mbay boo bëggee dimbale ñu jiite réew mi lan nga leen di wax ak loo leen di digal pour mu stable. waa xam nga njiit day am yërmande njiit de yërëm askanam askan bi askan bi it wekk njiit njiit bi ñaari benn mënul dem askan bi it nañ am ay valeur valeur mooy gis nga tey man xaste jàpp ma ko ni mooy defar réew de wax lu bon bu jàpp ma mooy defar réew dama jàpp ni wax lu rafet dal mooy defar réew te àdduna amul solo te am na ci loo xam boo ko boo bu dugg ci après fu mu jëm amul sens mbay nañ bàyyi war sunu xel ñu xam ni euh, àdduna senegal ñun ñoo ko moom te pays de la teranga la ñu wax nag waaye nag Sénégal nag mu ngi bëgg a rax tey boo xoolee yi commencé xew nii géej ga ma de Italie euh, accident yi mare de Italie ñu ne yeeti yee nañ nangam te xamoo léegi dëgg dëgg yëf fan la jëm xamoo fan lay yëm kon nag sëriñ bi ah, ñu war a wax nañu wax te réew mi toll na foo ni wax ci suuf xew na ca kaw ya waaw moo gën a wóor. est-ce que jotut kon ñoom ñu gis leen yéen ñi nga xam ne suñ boroom may na leen ndax am na foo xam ne bu ngeen fa jaaree xëy na jàmm mën naa am. waaw mooy fii ñu toog nii di wax parce que nag man nag damay wax ni mbay giiñal naa la ci alxuraan lépp lu may wax sama diggante ak sama borom laa ci wax waxuma ngir kii waxuma ngir kii gis nga tey président Macky Sall moo ko waxal boppam. moo toogal boppam it xamal ni moom du dem fii lay em ñu rafetlu ko te ba ca ñaan jotee dañoo taxaw ni ñu ngi koy ñaan n'est-ce pas kon loolu ñu ngi koy ñaan yàlla waaye léegi moom li mu war a def moom it tey comme moom nee na du dem man su doon mën a de wallaahi la ma fi dese bariwul lépp bis bu ma jëm damay fexe mu doon ndox mu sedd dugg yi ci man fii juróom-ñaari weer yëpp mat su ko defee sénégalais it xam ni dénk ñu ma poussé bi mu réere sama loxo parce que toujours damay wax di comme Abdoulaye Wade jaar na fi dëkk bi tàkkewul ci moom Abdou Diouf jaar na fi dëkk bi tàkkewul ci moom Senghor jaar na fi dëkk bi du ma mujjee puusa nag mu riir samay loxo ma ne du ma nangu dëkk bi tàkkee ci man lii rek mooy problème bi njiit euh, réew mi dégg na conseil boobu waaye beneen actualité du ñu tëj te laajuñu la ko ndax dañoo xamoon sëriñ Abdoulaye Diop xaas ci xam-xam bi mu ciy faj jaami yàlla yi di leen ci jàppale ñu xam sëriñ Abdoulaye Diop xaas ci social li mu am képp kuy seetaan xam nga ne mu ngi koy bokk ak jaami yàlla di leen ci dimbale mais ñu gis mu ñëw ci beneen facette ñëw nag dugg ci làmb ji xaas production am dara waralu ko lu dul jàppale ndaw ñi ak xale yi nga xam ne ñu ngi bëre yaakaaroon lu dul loolu te xëy na at mi dana dee sax te duñ bëre la lu waral loolu Ablaye Diop xaas ñëw rek dugg ci làmb ji. xaas production bi boobu xaas TV production boobu man moom mais xam nga ñaar dafa am aussi xam nga nit ki euh, man defe naa bokk naa ci site internet bi nga xam ni tey bëri na ci loo xam ni dama koy sokk rek garab la damay jëmbat xam nga nag loxo bi daa barkil fi ne ba jëmbatee léegi gis ñëpp ñëwaat ni dañuy jëmbat loolu it yàlla defal ma ko ba ma fi commencé xaas production jëm ci théâtre gis nga tey ñaata site internet ci série ñoo def ñoo def loolu fi ne del xool promoteur yi. léegi waaw mais sant yàlla la waaw léegi dama xam ne waaw dama xam ne comme bu ma commencé. ñu ñëw te la ñu war a bëri daa bëri moo tax ma jë ma ji rek mhm. lii rek la amul leneen. ak it euh, dugg ci mbër yi jàppale leen comme ni nga ko waxee ndax ñu ci bari. jàppale bi déggoo moo tax ma la su ma duggee ñeneen dugg. léegi ñëpp ñu daal di bëri. waaw ndax jamono day toll foo xam ne euh, mbir moo gis rek. Euh, day toll jamono boo xam ni liggéeyal ci yàlla daf ci am solo te dañuy wax ni làmb. lu ko gën a métti amul te mbir des nga xam ne don la comme dama déglu Modou Lo mu wax wax bu am solo mu ne dafa am loo xam la koy nattoo nga bëgg ko maanaam bëri na mbëri yoo xam ne yàllaa leen ko nattoo xam nga kii dem ba Europe ñibbisi entraîné ñibbisi ngir bëgg a bëri nga gis nit di daj fi pour dem Europe liggéey kon nga xam ne nattu man tawee su lool kee dem na entraîné jóg kii mu ngi dem bëgg a toog mm-hmm. kon kay kii yàllaa ko nattoo lii kon nag ki ko yàlla da koy bëggal li mu bëgg ñu ne ci combat bi lay yem wala xaas production bi day continuer xaas production facette bu ne la xaas produ xaas production dafa am juróom-ñaari kanam firndeel na ñaari des na juróom mais bii moom luy continuer lay doon ak bureau xaas TV man sama yoon nekku ci. li ci garaaw mooy damaa jël menn mbër mu ne lim dugg xamu ko te man yow moom ñëpp xam na ne da ngaa neutre ce que doo ko wax ne yow da ngaa neutre sa yoon nekkut ci laa ji <laughs> Xaadim Njaay ah non Sëriñ Xaadim yow kilifa nga tur bi dafa màgg. te yaay yaay suñu sëriñ sëriñ xaadim xaadim rasul jeexal na wax te yow fi mu ne macha allah xam nga man euh, fi ne bu may far sax est yow laa faral wax liiru problème boobu kon am na nag yow ko xam nga nëbbatuuma liiru bu la xaadim jàppee liiru bu la xaadim ay liiru bu la xaadim parce que xaadim comme dama ko déglu mu buñ ko daanee nañ ko woy Jean te xam nga ni ku jël xaadim ak Jean di ko wute wute na kon liiru am nga problème te xaadim gis naa ko muy wax sëriñam yoo xam ni di takk loxo rek boobu bu ñu la takki doo yëngu moom waaye rek macha allah lii rek mooy àdduna euh, kontaan nañu euh, Mara ñu bàyyi la nga tàggoog mbokku internet yi jërëjëf Mbaye di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla it réew mi yàlla fi jàmm di ñaanal ay ñi nga xam ne tey jiitu nañu sunu borom yërëm leen te xari leen aljana ñi tëdd ci lalu hôpital yàlla yëkkati leen ñu ne ci lalu prison yi sunu borom it fëgg seen bopp ñu génn ak jàmm la leen fa dugal ñu bañ koo def ci barke yonent yàlla Muhammad di leen sant di leen gërëm jërëjëf Mbaye internautes yu Khass TV bëgg nañu ni nu leen ko waxee rek dinañ ñëw ci yeneen facette ci làmb ji ci production théâtre yi ak ci yeneen émission ak ci émission yi nga xam ne da ngeen ciy soxla kilifa gi di ci soxla xam-xamam ak xalaatam euh, yooyu yëpp bu ci yàlla àndee dinañ ko gën a yaatal jër ngeen jëf